Euh, xale yi bëri nañu am ay diplôme te amuñu liggéey. voilà Pape tey reportage société ñoom la dem euh, lan lañuy ñuy wax tàllal seen micro. Mhm. la dem tàllal seen micro ñu seetaan ko daañu ñëwaat ci plateau bi. nañu ci école daara yu gën a ndaw yi jàng ci secondaire bi. jàng ci université yi jàng aussi ci école de formation yi lépp ngir lan dajale ay diplôme rek ngir mun a am liggéey boo xamante ne dinañ ci mun a suturloo. mun a am vraiment njukkal bu ñu delloo waa kër mais ndekete yow c' est tout à fait le contraire ndax fii ci Sénégal boo buggee sommi da ngay jàng ndax boo xoolee li fi nekk fii rek la am nga dugg école am li nga war a am jàng toog war a liggéey doo liggéey loolu fii rek la am ndaxte li ñu war a def def nañu ko ñu gis ne Sénégal fii pour nga mën fi jàpp fenn da ngay wër ci entreprise di déposer eh, fonction publique nga inscrire. doo gis dara ndax boo inscrire woo yaa ña nga inscrire woon noonu da ngay toog jékki-jékki bañ ne la diw woon nañ pour wax la ne la bu fekkente ne ci côté fonction publique moom maanaam côté gouvernement bi foofu moom laxisme total foofu la njëkki li nga war a yeyoo maanaam l'homme qu'il faut à la place qu'il faut amu fa nekku fa sax ndax li nga xamante ne yow yaa ko mën da ngay jékki-jékki wër gis ñu jox ko koo xamante ne toll la sax ci catu weer ci boobu lay xam loolu muy loo xamante ne dafay metti ci xolu ki am diplôme am ñëw toog am compétence am ñëw toog di xaar ñu am luñ ko jox wër nag déposé bay bëgg a dee pour tourné ñu naan yow jàng nga lan moo tax ni taxawaalu ah yow day waroon toog fii yow waroon def ne mais nan lay def depuis mun nañ la wax ne la 2011 wala 2010 nga am sa bac nekk université 2015 2016 nga génn dem ci école formation yi 2017 nga ñëw toog ne damay xaar ñu jox ma liggéey te wax naa la ne la depuis 2011 ba tey yaa ngi dugal di génne ay dossier pour ne yooyu yaay naa am stage su ma ko déposé naa am fii yëpp kenn du la woo kenn du la woo te loolu yëpp ñu teg ko ci lan ci ku amul ndey ku nekk doo fi liggéey ku amul baay ku nekk doo fi liggéey ndey ak baay mooy barando loxo bu gudd il faut ñu am koo xam kii taa loolu di ay musiba yoo xamante ne mu ngi ci réew mi te baaxu fi ndax ci li muy poussé ni ñi mooy ci sàcc ki fenn ak dem agressé ki loolu nag di ay yi nga xamante ne dafa doy waar lool ñun ñu nekk fi bu ñu toogee xool du ñu xam lu ñu war a def da ngay jël say kayit da ngay bind da ngay déposé da ngay wër bay bëgg a dee doo am dara doo gis loolu nag di ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy dund depuis 2011 ba fii may waxe yow mosuma liggéey te jàng naa def naa li ma war a def yëpp taxaw naa fi ma war a taxaw yëpp fu ne maa ngi koy dugal lu ne maa ngi voilà mu ngoog donc moom waxtaan mu seex ak euh, Nana Aidara il n'est pas le seul ah y a mm-hmm. yoo xamante ni jàng nañu am nañu ay diplôme am cursus bu mm-hmm. normal mais malheureusement mm-hmm. euh, amuñu euh, liggéey souvent j'entends ñu ne baatu chômeur sax ñoom ñoo ko gën a yeeyoo bilaay <laughs> loolu la wax léegi ci reportage bi nee na booy xool chômeur sax ñan ñoo moom mooy ñi nga xam ne ne ñoo yor seen diplôme ba pare amuñu liggéey ce qui est dommage mooy moom kese moo ñem ñemee wax ñu ci bëri dañuy làkkatu parce que tout simplement boo waxee dañ naa naa dëgg la am naa samay diplôme ne maa ngi business saa côté maa ngi dóor waar te pourtant defuñu dara dañuy xëy suba ba ngoon jot mais ñemewuñu si wane seen euh, seen kanam euh, ci télé bi bokk na nag ci li ko indi loo xam ne waxtaan naa ci ak ñoom ñu ne fonction publique déjà pour commencer du diplôme yëpp la ñu reconnaître te euh, école de formation yi bëri na benn bëri boo xam ne pourquoi tey jii ni am diplôme yoo xam ne c'est reconnu par l'État est-ce que tamit étudiant bi buy dem di inscrire xam ne ni diplôme bi nga xam ne ni école de formation bi mi ngi ko koy jox ci euh, yenn entreprise c'est pas aussi reconnu par l'État loolu bokk na ci li gën a yokk chemin yi instant bi parce que fu nekk rek foo tourné yaa ngi gis école de formation te pourtant du diplôme yëpp la ñu reconnaître beneen bi mooy le phénomène bras long tey jii Sénégal dañoo tàmm saay boo ñëwee dañ la naan kan moo la recommandé da ngay jàng am say diplôme bon nga ñëw gis koo xam ne ne yow yaa ko gën a compétent yow yaa gën am maîtrise ci li nga xam ne ne mooy liggéey bi mais dañ koy dañ koy jël bon dañ dañ dañ lay bett di jël keneen teg ko mu nekk loo xam ne ne tout le temps nit ñi ñu ngi koy kaas waykat yee ngi koy way pour te ça ne entreprise yu bëri bëri moo fi am même bi mooy fonction publique tey jii nii ku fa ku falu sa mbokk ngay teg balaa nga kaa xam nga dem mairie yi mairie yu bëri mbokk mairie ñoo fa nekk bu maire bi wàccee ay mbokkam da gis ñu wàcc da booy ñëw fekk changement di am. beneen famille ñëw waaw beneen famille ñooy ñëwaat mais mais gisoo dañuy tooñ parfois ñu ne États-Unis soo ñëwee dañ naan la loo mën. Mhm. France boo ñëwee dañ naan la loo jàng nga teg sa diplôme Sénégal da ngay ñëw ñu ne la la yónni ba <laughs> non mais sérieusement mhm. dañuy tooñ mais mais mais c'est c'est malheureux que mhm. parfois ça se passe comme ça et je pense que loolu moo waral jeunes yu bari demee léegi auto-entrepreneuriat mhm. même bu fekkente ne métti na te ci wàllu école yi aussi euh, ñoom balaa ñuy inscrire nañ dem jéem a informer au niveau du ministère de l'éducation nationale xool ndax école bi c'est reconnu parce que pour nga la il faudrait que am un euh, certain nombre d'années de mm-hmm. pratique mm-hmm. avant ñu lay reconnaître mm-hmm. léegi nag mun nga dem ci benn école jàng fa pendant trois quatre ans ba cinq ans génn fekk yo perte nga soit tu vas refaire une formation ou bien foo dem pour liggéey tam du ñu reconnaître sa diplôme te yow rek parce que fay nga sa xaalis ba pare sans compter bi ju expérience bu ñuy laajte tey xale bu am vingt deux ans xam nga pare formation nga ñëw di ko laajte expérience su cinq ans tu dois la chance non sincèrement moom moom c'est abusé parce que àdduna du neex ba mu am expérience boobu da ngay gis euh, demande d'emploi yëpp wala euh, proposition yi ngay am yëpp dañ lay wax expérience 6 ans expérience 5 ans 4 ans mais ki nga xam ne mi ngi soog a pare mënul am expérience boobu. il faut que pour leur donner seen première voilà. chance. pour déjà yow sa da ngay pour am stage te stage yi ngay am yëpp c'est pas rémunérant. dañ lay ñëw jël la exploiter la di la yónni café di la yónni doo liggéey dara loolu métier stagiaire non mais bon métier stagiaire après fii rek Sénégal lañ ko fonkul mais boo demee yeneen dëkk yi xalaatuñu yow nga liggéey te kenn du la rémunéré mais fii dañ lay ah, liggéey duñ duñ la renumérer sécurité <laughs> yow rek yaa ngi eh, aw. non eh stagiaire là maintenant ce qui est pire sax mooy dañuy. Euh, France fu ci mel ni France par exemple. il mhm. y a des gens qu'on appelle des stagiaires éternels. Mhm. c'est-à-dire que da ngay nekk ci même boîte bi ñu def loolu stage ba parfois mënuñu la jël. trois fois d'affilée ñu bàyyi la nga dem. ñu indiwaat la jëlaat la ci beneen branche stage. c'est mhm. pas que ici hein. e que souvent métier yi ah, gën a ingrat Sénégal métier yi gën a ingrat yow yaa koy def yow yaay defar café yi parfois am na ci ñu yabaate ñoo xam ne man fu ma doon defee stage dañoo bëggoon may fomp de ménage te du fii ma ne leen def am na fépp dëgg la am na fépp te te nekkul loolu fii rek la mais peut-être je sais pas de trouver solution parce que métti na tamit mhm. nga jàng ba pare mhm. yor sa diplôme ñu lay stage loo di la stage loo parfois duñ la sax jox passe c'est yi nga xam ne jàng nañ bien que c'est quoi parce que boobu nekkee population boo xamante ni 70 pour cent wala presque pour cent de la population sont des mmh. yooyu noonu yëpp nag dañ leen war a mën teg benn politique d'emploi bi nga xamante yenn yi ñu doy du chaque fois ndaxte population boo ko mënee boo boo am euh, population bi nga bëgg mmh. ci nga xamante développement la mmh. que ça soit mu nekk éducation bi politique d'emploi bi ndaxte bu ñu jàngee ba pare il faut tamit impérativement ñu am Euh, université mm. yoo xamante ni leen mën a orienté mm. ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni liggéey nañ ba pare am seen euh, jàng nañ ba pare am seen diplôme ba pare duñu am fu ñu leen mën a carré moo tax qualification bi tamit c'est important mm-hmm. mais tamit ñuy jublu ci yi nga xamante ne mooy euh, les nouveaux métiers il faut mm-hmm. que tamit gars yi di ñoom ndaxte bu fekkee da nga def da ngay suivre comptabilité bi xam nga ni bu baax comptabilité dëkk bi yëpp mën nañu wax ni école yu bari dafay def ay comptabilité parfois da dem ci yenn am na yaa di nouveau métier mun que ça soit mu nekk mm. nga teel a xam ne yow boo amee bac ci lii laa bëgg mm. mais li nga bëgg tamit ndax boo ci génnee di mën a am débouché ci génne loolu c'est important ci école yi aussi je pense que ni dañoo war a jàll aussi ci théorie euh, euh, ci pratique bi tout temps dañuy école yëpp tamit baax na nga nga jàll tuuti ci pratique bi wan xale bi ne ko lii la au lieu de bind leçon tout le temps loolu mooy def tey bu demee stage da gis xam-xamam day néew lool par rapport ak ñi nga xam ne ni peut-être jàngee nañu feneen wala par rapport ak ñi nga xam ne dem nañ ci école yu gën a mag parce que ay niveau la rek école de formation yi am na ci yoo xam ne ni moom da ngay da ngay def théorique da ngay def pratique na ñoo xam ne nii ci théorie rek la ñuy yemale du coup xale bi bu génnee pour mu am liggéey dafay nekk problème parce que li nga ko jàngal ci xel pour mu def ko ci këyit wala pour mu def ko ci machine wala mu def ko ci liggéey bi dafay xaw a jafe war nañ ci bàyyi lool en tout cas diplômé yi ñu ci bëri ñu ngi chemin te mu nekk loo xam ne <coughs> metti na lu mu indi nag mooy frustration rek mm. parce que jàng ay année toll ci teral waajur te mm. munoo teral amul lu ko gën a metti je pense te mm-hmm. dañuy dem ba dañuy sax xaw a soxo benn moment ci état bi par rapport ak état dañuy mere ñëpp daal mm-hmm. parce que jàng nañ nu ñu war a jàngee am nañ diplôme yu ñu war mais seen place joxuñu ko ñi nga xam ne ne ñoom lañ ko war a jox dañoo jël ñeneen teg leen fa mu metti leen lool comme kay ki nga xam ne ni mi ngi doon wax mm. moom nee na depuis 2009 la am bac mm. moom musul liggéey ci àddinaam te pourtant am na diplôme yëpp mm. dañuy wax chance chance te waxee mais des fois aussi état bi il faut mu dugg ci liggéey beneen bi aussi mooy des fois jeunes yi il faut ñu xam euh, jël ay risques di di di créer ay entreprise xam nga ba bañ a xeeb ay métier mm-hmm. poulailler nii da lay dugal entreprise bu mag ñoom defe naa des fois dañ koy fàtte mais parfois tam moyens yi mooy des waaw mais xam nga nànk nànk la du jour man à chaque fois damay ne quinze mille mun na la jural mm-hmm. boo xoolee ay cuuc li muy jar bëri bëriwul boo dina dina ñëw mais boo bëggee rek ni toog ni dama am samay diplôme tant que solu ma rek du ma liggéey donc laa moom waata wala tooguma ci bureau mm-hmm. donc laa dafay xaw a métti ndax ñëpp mënuñu nekk ay ay bureaucrate donc il faut bon ñoom ñu xaw a voilà daal état bi ci jàpp ci góorgóorlu baax na je pense que même semaine bi maa ngi gis ci internet la un jeune mm. bu ñu doon def reportage ci moom c'est un étudiant mais bu wàccee rek da nga koy gis mu gàdde kafa Touba mm-hmm. di wër di ko jaay donc mm-hmm. yooyu yëpp comme ni koy wax booy dajalee mun na la effectivement y a des choses à faire comme job job quoi société moom il faut mhm. toujours yaay xool li nga xamante mais nag da xool ci objectif lan nga bëgg ak nga bëgg a dem donc loolu il faut nga am benn plan de carrière a toog rek di xaar bañ a toog rek di xaar gouvernement voilà di lépp soxla ko soxla del kii ay la mais nag mhm. ci idée naan Sénégal dañ lay jàppale wala dañ naan la kan moo la boole ni bon je pense bien loolu ci fi mu jógee mooy bu njëkk ba da doon gis mag bu doon liggéey ci benn entreprise mais c'est yàlla sax yàlla dafa ségrégation nee na yonent bi mooy ngeen gi minne loolu yéen xale yu ndaw yi du yéen a koy dindi ci non xale yu amul liggéey dañu góor a dem wuti liggéey mhm. entreprendre y a des solutions y a y a aussi ce qu'on appelle la chance mais mhm. pour ay affaire braloo non non dama la si yokk rek si li mu jógee dafa simple dafa dafa dafa dafa xaw a yàgg parce que nit da nga daan gis mag bu liggéey sama papa par exemple bu liggéey entreprise ba mu retraité jël doomam teg fa tubaab nee na sous couvert voilà pour mu mën a jàppale tubaab ne sous couvert mais Mamadou Ndiaye dama la si yokk rek ñun dafa amoon amoon nañ jëppee yow Sophie man ñii rek laa jëpp ci télé bi rek man nii damay wax de nana dama lay expliquer ci télé yi di wax eh, ay waxu dof rek di wax yoo xamante ni eh, mënul <laughs> yàq moo tëddee noonu yàlla moo sàkk ñëpp waaye nee na bi moo ko gënal mooy préféré loolu mënul ñàkk yàlla a ségrégation nee na yonent bi mooy xaritam du <laughs> ñàkk boo sama sama mbokk liggéey fi moo gën a yomb ku dul sama mbokk bu jaaree ci man dinaa ko faciliter loolu kay mënul ñàkk léegi nag en fait xale yi li nga leen di wax mooy parce que boo toogee naan ay braloog affaire yooyu loolu mooy indi xol bu tàng ak sa moroom bu am dara nga iñaane ko bul dugal loolu ci bopp xale yi xam naa leen ay wuyu ngeen ay bànni ngeen ay gajangeer ngeen bàyyi leen yi ngeen di dugal ci bopp xale yi xam naa leen du ngeen cadre ay como ngeen yéen ñi génn télé xam naa leen ay wuyu ngeen ay maaci pi ngeen saay saay yu bon yi ay yow ñu ngi doon yabaate waay nii ngeen di def fital xale yi comme ça xale yi amul liggéey toog seen kër yi voilà ah, dëkk bi braloo rek boo amul mbokk doo liggéey loolu mooy indi boo gisee sa bokk bu dem Mauritanie sax nga mer. wallaahi ay wuyu ngeen xam naa leen compétent mais mais ñun bi amoon nañ cours boo xam ne c'était pour xool nooy defaraatee sa CV. voilà présenté woo booy liggéey suñu benn prof daf ñu wax que dem leen ngeen déposer de manière spontanée foo leen gis liggéey bi ngeen bëgg. mais liy gën a marché mooy le bouche à oreille. ça on l'a clairement dit. Ah et ça marche partout dëgg la ki nga xam ngay gën a wóolu mais ñu teg nit yi. voilà foo xamante ne. Euh, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut nit am na compétence bi mu am mhm. bi ñu soxla quoi. c'est ça pas genre juste prendre la personne parce qu'on la connaît mais parce que xam nañ ko mais mën na li muy def surtout compétence ba pare boo soo gisul bureau bu la embauché comme ni ko Nana waxee rek essayez par. y a des initiatives ah il faut il faut il faut prendre des initiatives. il y a beaucoup de jeunes qui ay Ndiayum Café Touba ay affaire y a tellement de choses yoo xam ne nit da ciy tekki léegi. et puis léegi xale yi xale yi comprendre nañu. waaw surtout jigéen ñi j'ai vu que tout le monde vend. oui des fois je dis bu ñëpp de jaay kuy jënd. surtout jigéen ñi mais ñëpp di jaay ci WhatsApp bi ñëpp di jaay ci Facebook. waaw WhatsApp bi centre commercial la centre commercial mais jigéen ñi moom. mais ay wóor yi xam nga da ngeen di perturber xale yi toog ci télé yi wax leen yu garaaw yoo xam bi xale yi dañ ciy jëlee dof léegi jigéen ñi ñëpp dañuy def traiteur ñu sincèrement xasuma góor ñi mais jigéen ñi jom gi ñu am da nga gis étudiant étudiante boo xam ne ne mi ngi jàng mais ci li muy am as néew ci lay fay jàngam formation mhm. da nga ñoom ñëpp dañuy togg léegi seen kër yi di liggéey ci entreprise yi am na ay xale yoo xamante ni bu nekk ci village voilà suñu liggéey ci kër comme comme comme jànk yanap la su fi mii sama jànk la mhm. weekend yi. <laughs> day ñëw de. non mais bii xarmat la kon. day minaas bii xarmat doon. <laughs> di bomb te xam nga man sama bomb du yem. <laughs> Ah, bomb nii yow sa bomb kii rek nii waaw kay. bomb bu ma bon euh, bu am solo la reportage société yi euh, ñun dañ ciy jundu rek junj rek par mercredi ak Nana dara mais souvent dañuy transférer dossier bi. Euh, chez Eva Tra bu ko defee moom Ndoye Bane euh, ñu gën ko développé gën ko détaillé ak ay mm-hmm. reportages ay commentaires yoo xam ne ni euh, yéen di ngeen ci mën a bokk yéen téléspectateurs yi merci Nana Mante 9 mooy doog